Donc, Mesdames nous vous laissons avec le directeur de la sécurité chers amis de la presse, la police nationale tient à faire une déclaration concernant les manifestations récentes et souhaite partager les informations suivantes. Au cours des derniers jours, nous avons malheureusement enregistré les éléments suivants. Un total de 16 décès, dont eux, un survenu hier soir, De nombreux blessés et des dommages matériels ont été enregistrés. Nous présentons nos sincères condoléances aux familles éplorées qui ont perdu des proches. Nous souhaitons un prompt rétablissement aux personnes blessées lors de ces événements. Nous exprimons aussi toute notre solidarité envers les individus et les communautés affectées par ces troubles. Les personnes appréhendées au cours de ces événements sont principalement des individus armés et dangereux. À ce jour, 500 individus ont été interpellés. Parmi les personnes arrêtées, nous avons enregistré également des mineurs et des personnes de nationalité étrangère. La majorité de ces personnes arrêtées étaient en possession de cocktails Molotov, d'armes blanches, d'armes à feu de gros calibre. Les forces de sécurité on fait face à des manifestants violents qui ne cherchent pas à exprimer des opinions, mais qui sont plutôt engagés dans des activités sub subversives. Les actions notées ont visé des infrastructures essentielles de l'État, telles que les usines de production d'eau et d'électricité, les transports publics, ainsi que des domiciles, des commerces et banques. L'objectif de ces attaques est de perturber l'activité économique du pays et d'instaurer un climat de terreur parmi nos concitoyens. À titre d'exemple, le fonctionnaire de police qui a été pris à partie par les manifestants est un officier de police qui a refusé d'utiliser son arme quand il s'est rendu compte qu'il était en face de mineurs, alors qu'il était dans les conditions légales de se défendre conformément à la loi. C'est lui aussi qui, dans un dernier acte d'héroïsme et de bravoure, à demander à ses collaborateurs de le laisser sur place. Nous lui souhaitons prompt rétablissement. Nous appelons tous les citoyens à rester vigilants. Nous exprimons notre gratitude envers les Sénégalais qui collaborent déjà étroitement avec les forces de défense et de sécurité pour assurer la tranquillité et la quiétude de nos concitoyens et protéger la République. Nous les encourageons aussi à signaler toute activité suspecte ou toute présence inhabituelle aux forces de sécurité sur les numéros 17 pour la police nationale et 1, 2, la gendarmerie nationale. Seules zones ont été affectées le plan économique dans les deux régions que sont Dakar et Ziguinchor. Actuellement, la situation est maîtrisée. La situation est au calme et à la tranquillité. La police nationale est déterminée à assurer la sécurité des personnes et des biens et à faire respecter l'ordre et à respecter faire respecter l'ordre public je vous remercie donc li ma waxoon ci français ma tënk ko tuuti ci wolof wax ni yéen ñëpp gis ngeen fan yu ñu weesu ay yëngu-yëngu yu amoon ci dëkk bi malheureusement ci loolu am nañ ci fukki nit ak juróom-benn yu ñàkk seen bakkan kenn ki démb ci ngoon la ñàkk bakkanam ñu ngi jaale ak di masow ñi nga xam ni njaboot yi nga xam ni ñoo ci ñàkk seen ay proche ñu ngi ñaanal également ñi nga xam ne ñoo ci am ay gaañu-gaañu yàlla may leen wér ba ñu delluwaat seen njaboot yi ñu ngi exprimer aussi suñu solidarité solidarité autorité yëpp ñi nga xam ni am nañ ci ay lorange ñi nga xam ni am nañ ci ay loraange ci seen alal nga xam am nañ ci daal jafe-jafe ci événement yooyu mais li ñu seetlu mooy ñi doon manifester ñin ci jàpp te ñu mat ay téeméer lu ci bare dañu yore woon ay ngànnaay ay cocktail molotov ay jaasi ay paaka ay arme de guerre la ñu yore woon te ni ñu doon defee manifestation bi def ñu won ni dañu gis loo xam ni daaw ñu ko woon gis suñu réew manifestation dan na am mais violence bi ci am léegi gisuñu ko woon donc ñu jàpp ni manifestation yi li leen li leen tax a jóg nekkul ni peut-être dañuy exprimer seen opinion wala leen lu ñu bëgg wane mais dafa dañu bëgg nasaxal institution yi daaneel yenn ñi nga xam ne ñun ñoo xam ni ñuy dundee attaqué ay banque attaqué ay butigu jaamur attaqué ay alalu jaamur loolu la ñu seet si manifestation yi fonctionnaire de police bi nga xam ne am na ci gaañu-gaañu mi ngi woon si situation boo xam ni dem na bay génnee armam pour utiliser ko mais bi mu seet loo xam ne ay mineur ñoo nekk ci foule bi ci kanam bare nañ ci mu delloowaat arme bi dem na ba situation bi nga xam ne ay collègue am bëggoon nañ ko sauver moom moo leen wax dem leen bàyyi ma fi mu nekk fonctionnaire bu émérite koo xam ni il s'est toujours montré par l'exemple ñu ngi ñaan nag citoyens yi ñu gën a góorgóorlu jàppale force de défense et de sécurité yi lépp lu ngeen xam ni gis ngeen ko loo xam ni day nasaxal karange réew mi ngeen jàpp ci jox information force de sécurité yi pour ñu mën ko ndax loolu la ñuy xaar ci citoyens yi te ñu ngi leen ciy gërëm parce que ñu ngi koy def bu baax di jàppale police nationale ak gendarmerie nationale ak force yi nga xam ne ñoo ngi impliqué wu yëpp si gestion sécurité événement yi di leen jox information pour ñun ñu mën a gën a assurer seen sécurité ci loolu police am na numéro 17 bu ngeen ci wootee information bu ngeen joxe dinañ ci jot gendarmerie am na numéro 1 2 3 bu ngeen ci wootee aussi lu ngeen bëgg a rek loo xam lii day na saxal euh, kaaraange réew mi dinañ ci jot seetlu woon nañ ci ndakaaru ak Ziguinchor la am ay yenn parti yoo xam ni amoon nañ jafe-jafe ci activité yi te loolu yàlla def na ni depuis fan yi ñu ñu ngi ciy liggéey te ñu ngi góorgóorlu ba fexe activité bi mi ngi dellu si situation normale te day gën a jëm kanam police nationale gendarmerie nationale taxaw nañ tem pour préserver sécurité sénégalais yi ak seen alal te incha allahu taala ñu ci amee ndimbalu population yi ak seen jàppale loolu dinañ dina dina dinañ ko am incha allah comme ni ñu ko daan defee saa su ñu ngi leen di sant di leen gërëm. Euh, waaw waaw euh, rek li ñu jàpp ci ay nit mat nañu juróomi téeméer juróomi téeméer yooyu dañu yore woon ay ngàndaay ñii ay cocktail molotov. ñii ay jaas ñii ay paaka ñii ay arme de guerre la ñu yore donc juróomi téeméer nit nit enquêtes yi ñu ngi koy wéyal léegi ma bàyyi leen ak euh, commissaire Guèye waroon naa ko de sax ci début bi présentation bi euh, maa ngi tudd commissaire divisionnaire Ibrahima Diop directeur de la sécurité publique commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle Masserigne fay mooy chef de service du groupe opérationnel de Dakar li GMI ci Dakar moo leen jiite commissaire divisionnaire Cheikh Dramé mooy commissaire central bu Dakaaru commissaire Mouhamadou Gueye xam ngeen ko moom mooy seen collaborateur au niveau de la police nationale yore bureau relation publique ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax ma bàyyi donc commissaire Gueye mu def quelques présentation rek ci événement yi li nga xam ne jot nañ ko ci dund merci donc ci ndigalu directeur de la sécurité publique a ah, d'accord, il faut nous changer de... C'est ah, jërëjëf mu ngi leen di sant donc ci turu ci ndigalu directeur de la sécurité publique euh, ci waxtaan bi mu wax ak yéen léegi mu aju jëm ci wàllu manifestation yi nga xamante ni dund nañ ko ci fan yi ñu génn dañ ci bëgg a ak yéen rek yenn ci ay euh, image ak ay vidéo yoo xamante ne xëy na du ñàkk sax ni gis ngeen ko muy firndeel rek li mu wax ni euh, manifestation yi nga xamante ni moom lañ nekk di dund wuute na ak manifestation yi nga xamante ni police daan na ko xam di jàmmarloo ak ñi ko daan def nga xamante ni lu ci ëpp li leen tax a jóg mooy euh, seen ay opinion la ñuy la ñuy euh, wane euh, ñu seetlu ni am nañ leneen lu ci rax loo xamante ni xëy na ci image yi buñ ci buñ ko défilé di ngeen ci gis ay yenn yenn firnde ah, vidéo c'est image bi ngeen di gis benn video la buy wane nit boo xamante ni arme bii mu yore xëy na du ñàkk am na ñu ko gis sax mais lii arme de guerre la waaw mu wóor ni kii li ko tax a jóg moom du manifester leer na parce que kii arme bii mu yor ñii nga xamante ni sax dañuy nekk ci maintien de l'ordre du ñu yor arme bu ni mel ñu nekk ci zone de guerre ñoo koy yore donc lii benn la ci firnde yi wane ni naam am na ñoo xamante ni dañuy manifester parce que dafa am lu leen tax a jóg mais am na ñu ci rax ñoo xamante ni euh, leneen moo leen tax a jóg li olof di wax am na ñuy gàmmu mais am na ñoo xamante ni dañuy raas dem donc loolu mooy première image beneen image lii beneen image la boo xamante ni moom it day wane nit koo xamante ni mu ngi yor li ñuy woowee pistolet automatique PA mais ki koy tiire bu ngeen ko xoolee xam ni kii miinul arme bi mu yor parce que ni muy tiiree nga xam ni kii xëy na yor na arme bi mais euh, miinul li muy def loolu nag li ci mën a judd mooy incident ak euh, mën na ci lor ku nekk parce que li muy def moom ci boppam maîtriser wu ko mën na ci gaañ boppam rawatina nag ñi nga xamante ni ñoom ñooy ay ay manifestants beneen vidéo beneen bi également day wane koo xamante ni moom it arme de guerre la yore te arme bi mu yor kii ni muy tiire wuute na ak ki nga xamante ni moo doon tiire sànq ndax kii professionnel la li muy tiire daf ko xam maîtriser na arme bi xam na li muy def te kii ku ko xool xam ni manifester taxu ko jóg waaw ñu gis ko nii mu yor arme jàkkaarloo ak force de défense et de sécurité yi lii beneen vidéo la moom it buy wane également nit bu yore arme di dóor sans pour autant ñeneen ñi di gis ni mu ngi dóor ndax daf koy dóor rek dugalaat ko ci tegaat ko ci ci pooj bi donc loolu lépp day day firndeel rek ni am na ñuy manifester naam mais am na ñoo xamante ni li leen tax a jóg di manifester loolu nag day interpeller ñi nga xamante ni ñoom manifester rek moo leen tax a jóg ñu xam ni ci biir firndeel sa Euh, opinion sa bakkan xaj na ci ndax ñi nga xamante ni ñoo ci rax te leneen tax leen a jóg ñoom bu seen pexe sottee mooy dinañ def ay dégâts maanaam dinañ tiire ci population bi te liñ ci jublu rek mooy fexe ba ñu jiiñ ni FDS yi ñoo ko def FDS yi encore une fois muy les forces de défense et de sécurité population bi du seen ay ennemis nous sommes là pour la population li ñu nga xamante ni mooy suñu liggéey nekk suñuy mission de tous les jours mooy fexe narkan la su euh, population bi di nekkee ci jàmm naka la ñuy mën a vaquer à leur occupation naka la ñuy fexe ba fànq lépp loo xamante ni jug na ngir gàllankoor seen ay activités loolu mooy suñu mission. loolu tax na exemple bi mu ci joxe léegi doon ci sëkk misaal mooy ki nga xamante ni demoon na ba nekk en situation de légitime défense ñëpp gis nañ ko ñu koy dóor ay ay briques. mais mu garder sang-froid am parce que xam na ni ñi mu jàkkaar lool euh, du ñu ay ennemis mais ñooñu ay frères am lañ ay sœurs am lañu ñoom ñoo bokk lépp. donc encore une fois pour leeral rek ni police nationale comme ni ko directeur de la sécurité publique waxee mu ngi taxaw temm ngir jàmmarloo ak ñooñu nga xam ni li leen tax a jóg mooy yàq activité économique yi li leen tax a jóg mooy euh, cambrioler. ay kër li leen tax a jóg mooy dugg ci ay banque jël fa ay xaalis te am na ci ñu bari ñoo xamante ne jàpp nañ leen xëy na bu enquête bi sore du ñàkk dinañ fi ñëwaat ci yeneen jotaay pour leeral leen lépp li nga xamante ni enquête yi wane na ko euh, ngir ñu xam ni également euh, police nationale mu ngi taxaw ngir garantir la sécurité des personnes et des bien encore une fois ñuy woo population bi ci collaboration lépp loo xamante ni gis nañ ko loo xamante ni tey na seen xel nañ ko signaler police nationale muy guddi muy bëccëg li ci war jot nañu ci ay ndigal ngir def ci liñ ci war a def ba ñi nga xamante ni xëy suba dem liggéey seen liggéey moo leen tax a jóg ñu mën koo def te duñ ci am benn jafe-jafe je pense des na denn deux ou dernière deux dernières images yoo xamante ni xëy na ay ay ay photo la ci ay lii exemple la rek ci yenn ci ay nit yoo xamante ni jàpp dañ leen fekk ci ñoom gànnaay ah ak ay cocktail molotov yoo xamante ni dañ koy sànni way takk der yi ah di ko euh, di ko sànni également ci kër wala fi nga xamante ni bëgg nañ fa euh, bëgg nañ ko taal mais également ay armes blanches lii benn ci arme à feu yi nga xamante ni mooy ngànnaay yi nga xamante ni saisir nañ ko ci ñenn ci nit yi ñu yi ñu jàpp donc encore une fois lii moo nekkoon solo waxtaan bi ah, di leen sant bu baax ci euh, seen ñëw di jeexalaat rek encore une fois ndax appel du doy wax population bi encore une fois nañu gën a redoubler de vigilance nañu xam ni euh, dénoncer li nga xamante ni mooy ay faits yu leen jaaxal ci seeni quartier loolu mooy seen sécurité voilà te à chaque fois buñ ko defee police nationale dina ci def liggéey bi war ngir ñi nga xamante ni ñoom dañoo jóg ngir yàq seen dundin ñi nga xamante ni dañoo dund dañuy euh, euh, xëy ngir fexe nu réew mi mën a bañ a doxee police nationale mën leen a mettre hors d'état de nuire euh, ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax wasalaam nañ nañ ko tënk tuuti ci ci français donc je disais tout à l'heure qu'à la suite des propos liminaires de monsieur le directeur de la sécurité publique que nous avons des images que nous projetons et qui attestent Oui, donc, donc je disais tout à l'heure. Voilà, donc je disais tout à l'heure que ce sont des images qui montrent des personnes détentrices d'armes à feu Et on a bien fait tout à l'heure de préciser qu'il s'agit bien évidemment d'armes de guerre, détenues parfois par des profanes, qui peuvent, de par euh, la non-maîtrise de l'arme, commettre des faits euh, dommageables. De l'autre côté aussi, on a vu des personnes détentrices, bien évidemment, d'armes de guerre, mais dont la manière de manier ces armes atteste à suffisance qu'il s'agit euh, de personnes rompues à la tâche. Et ça, c'est suffisamment révélateur de ce qui a été révélé tout à l'heure dans le cadre euh, des propos de M. le directeur de la sécurité publique, attestant de la présence de personnes qui euh, soient mues par euh, des intérêts autres que l'expression des opinions. c'est le lieu pour nous de d'attirer l'attention de tout un chacun, d'appeler à plus de vigilance, d'appeler également à plus de prudence, mais également d'appeler à plus de sens de responsabilité dans l'implication de tout un chacun par la dénonciation de ces faits à la police, à la gendarmerie, bref, aux forces de défense et de sécurité. Je disais tout à l'heure que les forces de défense et de sécurité sont les collaborateurs de la, de la population. Si nous sommes là, c'est parce que la population est là. Donc nos missions, de jour comme de nuit, s'inscrivent à faire en sorte que les délinquants soient mis hors d'état de nuire, mais également que les honnêtes citoyens puissent vaquer tranquillement à leurs occupations. Mais la police à elle seule ne peut réussir cette mission C'est pourquoi nous en appelons au sens de responsabilités et aux réflexes sécuritaires qui doivent être de mise dans, dans ce contexte pour dénoncer les euh, actes qui semblent poser des questions de sécurité dans les quartiers à la police pour qu'on puisse intervenir et faire le travail de sorte à les mettre hors d'état de nuire. Donc encore une fois, la police nationale réitère Euh, son engagement ferme à euh, préserver l'ordre public et la paix sociale. Mais encore une fois, cette préservation passe inéluctablement par, par euh, bien évidemment, euh, la population, c'est-à-dire de par son implication. Alors, la police nationale le fait dans sa zone de compétence, mais bien évidemment, la gendarmerie nationale le fait dans sa, dans sa zone de compétence. Nous avons euh, une collaboration franche qui permet aujourd'hui de pouvoir euh, nous mouvoir sur le terrain en parfaite harmonie, en parfaite collaboration, et tout ça pour le bien de l'ensemble de la population. Donc voilà un peu les quelques mots que nous avons voulu partager avec vous, en vous appelant encore une fois à plus de collaboration avec la police nationale, avec la gendarmerie nationale, bref, avec toutes les forces de défense et de sécurité. Je vous remercie. Voilà, à l'instant, donc... Euh